président de la euh, ki nga xamante ne mooy Macky Sall. mais je pense que xam nga dafa que benn terme bu Umar wax c'est important man ku ma waxoon ne en deux mille vingt Sénégal dina am ay problématique pour wax on autorise une manifestation ou pas. duma ko mën a gëm. ndax période charnière bu ñu dund diggante deux mille onze deux mille douze. te ki nekk président de la République yoroon mer gàddoom ñu nekkoon ak moom place de l'Obélisque mu taxaw sañ wax ne si de refuse de sortir du palais on va aller le dégager. moom boo ko doon wax xam nga suñ demee ba yegg ci niveau boobu tey ji nga gis une certaine arrogance bu ñuy wax par rapport ak ñiy manifester pour lan flambée des denrées de première nécessité bu léegi waxatu na électricité parce que léegi lépp a yokk Guy Marius Sagna d'abord le premier fait qui est grave est que juriste yëpp war cee àndandoo xam ne ne tegul ci yoon mook Babacar Diop même chose lan leen jàppee mm-hmm. mm-hmm. buntu Gris Palais mm-hmm. Babacar Diop am étudiants yi génn manifester am syndicat SAES bu manifester ñu ne ah bu ñëngal université nañ génn Babacar Diop ah parce que Guy Marius Sagna mooy ku mbaamul ndey moom mooy kumba amul ndey nga tëj ko cette visite la am ba nga ko tëjee ba tey jii camp pénal te kun jugé ba pare lañ war a dugal foofu ñu ne on est dans un état de droit un juge est capable de te dire que oui dans un état de droit faut qu'on se pose des questions avec benn euh, objectivité ak honnêteté intellectuelle seen magistrat yi suñu juge yi dañ leen ñu laaj li lay warasul yàgg naa ko wax nee naa leen man d'accord naa pouvoir politique daanu mhm. garaawul mais la justice est le pilier de la société absolument bu ñu demee ñun tey jii ba il suffit de la volonté d'un pour ñu sànq nit xañ ka jabaram xañ kay doomam xañ kay mbokkam Sagna dafa def lu Babacar Diop deful. Mm-hmm. ñoom ñoo àndoon. buntu Gris Palais lañ jàpp lan leen jàppee. dugal leen kaso. Babacar Diop am na ñu ko xeexal. parce que syndicat la bokk. ñu ne noo il ne faut pas faire bouger l'université nañ ko libérer. est-ce que fukki nit ak ñett yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan en 2011 2012 pour lan. defuñu ko pour président Macky Sall fallu de non non non non c'était pour la démocratie et une nouvelle république mhm. basée sur de l'éthique un état de droit état de droit nag dañ koy tabax mais man gis nga damay ree des fois su ma gisee ñun ñuy fëgg dënn waaye on est un pays démocratique ma ne leen non on est un pays d'élection point barre <laughs> très bien Cheikh Omar. waaw mais très euh, rapidement. comme Pape a dit ah. sànq maa ngi tooñ sama grand mu naan mu ngi saluer préfet xam nga si stratégie nguur ci caay-caay nguur euh, day téye autorisation di ko yéexal. ça vingt quatre heures créer benn suspense doo xam pour que mobilisation ak organisation bi nga waroon am ñu mun koo casser sa dynamique loolu ci seen yëfu bopp la mais pour wax rek mu leer. ci constitution wu Sénégal ci régime bi ñu nekk du da ngay tàggu yégle la te booy seet bu ñu autoriser manifestation dëkk bi du xeeñ vinaigre du xeeñ poobar lacrymogène du jóg dara du xew mais te li ñuy jël ci effectif pour encadrer ko du bëri mais bis bu ñu jëlee décision ne dañuy interdire loolu mooy indi désordre bu fi am kon désordre bu am fii ci manifestation c' est l' état le premier responsable beneen bi chaque fois Guy Marius Sagna du ma taay di ko wax je le dis man maanaam c' est mon homme de l' année anniversaire am le 29 ci kaso bi la ko fekk nowel moom ak doomam bu jigéen gisu ko ak affection bi doomu am ci moom le même Guy Marius Sagna jéem nañ ko fi arrêté nañ ko fi lu ma mot 36 fois ñu koy téye euh, wax naa saaga na la France sax Guy Marius xaw na leen yëngal ba ñu ngénte daba tuddee ko roqee muy ak CFA mais soxlawuñu woon Babacar Diop soxlawuñu woon kenaan bi ñu fay nekk fukki nit lañu woon il fallait ñu isole Guy Marius Sagna il fallait ñu casser son moral mais xamuñ ni tu peux mettre une personne en prison mais tu ne peux pas mettre ses idées en prison ni son combat maa ngi dégg Ibrahima Sène le vieux communiste la parce que il veut défendre son poste de PCA dire que Guy Marius Sagna lii la mérite moom il mérite ni notre respect ni notre considération parce que au moins Guy Marius Sagna tey nous on à travers taxawaay bi mu taxaw parce que c'est un homme digne c'est un homme debout au début il a fait le déclic c'était juste un message mais malheureusement dañu am président boo xam ni il sait pas décrypter il sait pas lire des messages parce que s'il savait lire des messages su gisee mobilisation bi de plus en plus muy jóg de plus en plus ay mag de plus en plus ay jigéen de plus en plus ay étudiants demain tu vas voir ñi nga xam ne ñooy ferrailleurs yi dinañ ci dugal seen bopp gannaaw suba gis ñi nga xam ne xañ nañ leen seen i kër leen ko te ñu digoon leen plan jaxaay ñu nekk trois 300 familles dinañ gis seen bopp ils avaient juste besoin am benn cadre d'expression moom mu waroon interpréter message boobu. décrypter ko comprendre que les sénégalais dañu biñ la falee élection matul une année amoo grâce li nga am mooy da ngaa jël ay mesures impopulaires injustes et injustifiées et il est inadmissible que sénégalais yi. di payer les pots cassés sur des bêtises économiques ay investissement yoo xamante ne amaluñu njëriñ bor yoo xam dañ leen xoj ñu bugg ko teg si ñun nee na balaa nga may dog may ma rek euh, ma ma daaneel. Ah gis nga démocratie bu Sénégal bu doon nañ ko tabax parce que ñun peut-être fekkee lu bëri. élection bu njëkk ba mbañ gàcce am ñoom Abdoulaye waat di xeex ñii di xeex clandestine ba benn jamono Macky Sall n'a pas droit de faire mooy que Abdoulaye Wade il de faire moins que Abdou Diouf au plus. mais nag lu avancé wul dellu ginnaaw moo tax rapport bi génn Sénégal dellu na ci juróom-ñeenti place yu mu perte ci wàllu démocratie man bu ñu doon wax Cap Vert dama doon dama doon wax pays Fonana mais tey Cap Vert exemple vitrine démocratique la en Afrique. bien sûr uh-huh. Mauritanie gii jegee ñu dem nañ manifester seen buntu palais et puis bu ma déggee le président mu ne ku ñëw buntu palais bëggoo jàmm dafa am dóor doom ak làq doom ndax keroog bi mu wàccee Aliou Sall ci caisse d dépôt de consignation militant Aliou dañu manifester buntu palais dara fekku leen ci keroog bi mu recevoir ñu nekk ci partem ay ndaw partem am na sax ñu jéggi miir te dara fekku leen ci gis nga dëkk suñu waxul dëgg waxante wuñ dëgg mhm. Guy Marius Sagna li mu leen di mooy mooy seen trouble bu ñu waxee APS c'est Guy Marius Sagna qui ñu waxee ay sénégalais noot nañ leen jox ñu leen seen emploi c'est Guy Marius Sagna qui est debout question consommateurs yi ñoom Momar Ndao ñi nga xam ñooy consommer consommateurs yi kenn déggu leen c'est Guy Marius Sagna qui est debout gis nga nañu bàyyi jaamur te bàyyi seen caaxaan yi na euh, nañu xam nag euh, am na suñu yenn juges yi ak suñu yenn ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mm-hmm. crois dañ leen war a defar ay séjour rëbës parce que mm-hmm. ñi fi jàpp di tëjaate ñoom mosuñoo def sax garde à vue ñetti fan moo tax pour ñoom dañu créé seen benn terre train express rëbës mais rëbës ak la ci am détermination bi sénégalais am pour défendre seen yëf kenn très bien uh-huh. c'est pas le poste de bàyyi ko foofu lay plan c'est la préservation de ses soins médicaux à l'étranger. Ah. loolu moo tax mu waxee nii. Ah, waaw a bàyyi alors ko euh, euh, que xam nga euh, ba sax ba muy accepté itinéraire li nga xamante ne mooy manifestation dafa jëloo engagement que day sécuriser li ne mooy marche bi. Mhm. mais malheureusement def ko parce que ay nerf bi taxaw nañu toj ay boppu jàmbur gaañ fa ay nit te au même moment le matin ñu dégg préfet bi def benn déclaration boo xam ne dafa teexeel. di ay mel ni kuy mettre en garde ñi nga xamante mooy manifestation yi mel ni dafa xamoon ni dañ leen di attaqué ji am na yu bëri yoo xamante ne daal il faut ñu jéem ko éviter parce que bi nga xamante ni ñii di manifester yàquñu taaluñu pëna tojuñu verre ñeneen di jóge fee di leen attaqué mm-hmm. alors que yow mi nga xamante ni yow yaa ni woon da nga ko encadré di nga ko sécuriser gisuñu la loolu day waaw très bien alors euh, merci à vous pour euh, face à l'actu bi euh, là on va faire parler euh, Pape Alé Niang